wër liggéey te nag lii nga xam ne préfet bi wax na ko du ñu ko nangu tey du ñu ko nangu ëllëg état bu moo a tey ci biir journal bi nee na nag ñi nga xam ne ñooy taximaan yi ñoom nag kontaan nañu lool kontaan nañu lool ndax nag ay waay wu nekk rek jàmmi waay la ñi nga xam ne ñooy taximaan yi ñoom nag nee nañu vélo taxi amul sañ-sañ benn yoon maanaam di daw di def li nga xam ne mooy transport ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi dawal Jakarta ci diwaanu Ndakaaru ñoom nag nee nañu daal état bu Sénégal moo ko war a organiser bu dee bëgg na jàmm ndax xale yi ñoom nee nañu du bàyyi lii nga xam ne moom la ñuy def ndax moom la ñuy suturloo ndax amuñu liggéey yéen gi di direct news daan xëy ci élection locale yi surnal bi nee na parti bii di PDS PDS nag jamono ji nooy na lool PDS nooy na loola ndax nag PDS wàllu Sénégal lu toll ci cent trente cinq liste yu wàllu senegal yoo xam ne rejeté nañ ko ci élection locale yi te déggoo benn yoona maanaam PDS ñaxtu di contesté déedéet comme di def ni nga xam ne moom la coalition Yewwi Askan Wi di def loolu nag gisuñu ko ci ñi nga xam ne ñooy waa wàllu Sénégal loolu nag tey na xel loola yéen a kaay gi di direct news mooy wax nee na Woré Sarr mi nga xam ne PDS la bokk daan nañu koy jël nag def ko président de commission parlementaire CEDEAO loolee nag ñu ne déeta waaye ñu ne Karim Wade mi nga xam ne amel na état Sénégal lu toll ci cent trente-huit bàyyi nañ ko mu dugal ay huit huit yu bare bare bare ci biir dëkk bi te kenn waxu ko dara kërug Abdoulaye Wade gi nga xam ne moo nekk point e Macky Sall ci boppam moo ko yeggalewaat élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal journal bii di direct mooy wax nee na lii lépp nag soo ko boolee xel daal dafay tey ci diggante PDS ak ki nga xam ne nag mooy Macky Sall yéen kaay gii di réew mi ko di cee xëy di ñu xibaar naa ñu nag TER bii di train express régional maanaam Sénégal amee na ci ab bor boo xamante ni bëri na ba jéggi dayoo maanaam xaalis bi nga xam ne mooy génne ci pétrole bi ak gaz bi Sénégal il faut nag mu ci manque il faut mu ci manque ca xaalis ngir nag mën a fay li nga xam ne mooy bor bi mu amee ci train express régional ndax nag milliards il faut état bu Sénégal génn ko at mu jot ngir mën a fay nag bor bi nga xam ne am na ko ci terre bi yéen a kaay gi de la témoin nee na nag mari taw ñaana yëkk na musiba ak mbelengaan ki nga xam ne mooy Mansour Faye ndax mari taw ñaana nee na bërki dem boo ma Mansour Faye kenn xamu ko yorutoon ñaari salaamaaleykum jamono ci nag Mansour Faye ma ngi yor ay milliards di ko pasar pasare yéen a kaay gi di réew mi ko di jee ñu koy fekk fa Pape Diop bokk gis-gis daat nay wax ne jamono ji nag proposition de loi bi nga xam ne jëm na ci borom ñaari tur bu kenn xaar mu jàll assemblée nationale nationale dañ koy bloqué ndax Macky Sall ba mu fi nekkee ba léegi proposition de loi bu ñu yóbbu assemblée nationale bloqué nañ ko xanaa ya fa Macky Sall yóbbu rek la ñuy bàyyi mu jàll yéene kaay gii di lii quotidien xëy duñu xibaar mbir mu doy waar a doy waar mbir moo xam ne mbir mu reetaan loo reetaan lu la vidéo bi nag jamono ji mooy def bës ci àdduna bi ndax train express régional bii nga xam ne bërki dém moo njaay lañ ko inauguré Mansour Faye mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum transport nee woon na bu fa kenn nag dugal nag ay sewook ay paan ak ay géej ay jën xeet yooyu waaye nag li doy waar mooy démb dafa am benn waay boo xam ne sewo soob ceeb la këpp ci biir train express régional bi jàpp nañ ko teg nañ ko loxo yéen kaay gii di las xëy di ñu xibaar naan ñu ASP yi ñoom nag danañoo gi bi ñu ak ni jaar nañ ci estat ñu xëy fekk fa njiitu réew mi di président Macky Sall daal nay jox nag drapeau bi sunu gaynde yi niki démb ngir nag ñu daal di dem ci li nga xam ne mooy coupe d'Afrique bi njiitu réew na leen di ñaax daal na leen di jaajee nee na la nag il faut ngeen am xadar il faut ngeen am xadar maanaam détermination wax ju leer naññ la leen Macky Sall wax nee na leen nag soxlawuñ nag ñu naan Sénégal dem na final waaw Sénégal dem na final loolee nag lu baax la waaye nag ñun soxlawuñu loolu xaaruñu loolu ñun li ñuy xaar mooy andi fi rek rek rek la ñu nee na gaynde yi dem leen ba jeex journal bii di la témoigner nee neena am na gaynde yoo xam ne nag jamono ji dañoo coronavirus moo tax gaynde yi démb ci guddi dañoo mujjee bloqué waat fi nga xam ne mooy Dakar surnal bii di Sud Quotidien nee na nag Saliou Ciss dafa amee coronavirus Habib Diallo dafa amee coronavirus Loum Ndiaye dafa amee coronavirus journal bii di Stades nee na en tout daal sunu gaynde yi bay boo nag ñoo xam ne jamono jii daal lenn rek kese rek dong la Sénégal yi di xaara maanaam coupe bi ngir ñu andi ko ci réew mi société nationale d'électricité bu Sénégal Sénégal